أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء فاحرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية و... نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا amma baadu mbokk jullit yi dafa bokk ci yërmande yi borom bi subhaanahu wa taala yi mu defal jaam ñi di yërmande ju yaatu lool mooy yebal gi mu yebal ci ñoom yonent bi mujj ci yonentam yi nga xam ne moo ñëw di mottali jàngale yonent yi jiitu woon yépp li yonent bi alayhi salatu wasalam waxoon ne innama bu'ithtu li utammima mahasin al axlaaq li yonent bi alayhi salatu wasalam waxoon ne yàlla subhaanahu wa taala daf koo yebal valeur yu baax yi nga xam ne yonent yi yàlla yónni woon dañ ko doon def ci nit ñi mu ñëw di ko mottali di mottali seen jàngale nee na misaalam ak misaalu yonent yu ko jiitu woon mi ngi mel ne benn tabax boo xam dañ koo tabax ba mu pare rafet loolu nit ñi romb tabax bi di ko wër naan tabax bi ak a rafet ak a taaru waaye am na benn mool am na benn brique bu ci bu ci bu ci manqué ñuy wax ne ay way ak a neexoon tabax bi mat am lu ko mottali nee na moom mooy brique boobu di mottali tabaxu yonent yi alayhi salaatu salaam yàlla subhaanahu wa taala def yonent boobu mu nekk koo xam ne dafay ñëw di leeralal nit ñi yoon wi nga xam ne mooy seen yoonu borom di leen woo di leen jëmale seen borom subhanahu wa taala ci la yàlla subhanahu wa taala xettale nit ñi jële leen ci réer teg leen ci njub yàlla subhanahu wa taala lépp loo xamante ni xeeti sànkute la gu doomu adama mën a sànku fii ci suuf yàlla subhanahu wa taala musalee ci doomu adama yi ci yebal googu mu yebal yonent boobu kon yàlla subhanahu wa taala mission bi nga xam ne moom la jox doomu aadama ngir mu ñëw taxawee ko fii ci kaw suuf yoon wa cay nit pour mu mën a accomplir mission boobu yàlla subhaanahu wa taala mi ngi jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam njub li nga xamante ni bi mooy tette nit ñi di leen yóbbu ci yoon woowu moo tax suñu borom wax ko ne ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow day dëgg dëgg da ngay jubbanti nit ñi di leen teg ci yoon woo xamante ni yoon wu jub la ginnaaw bi mu leeral leen yoon woowu ne du yoonu kenn ku dul yoonu seen borom mi nga xam ni moo sàkk lépp lu nekk ci asamaan ak ci suuf kon njub mu ne su koo amee ci weneen yoon wu dul yoonu yonent boobu alayhi salaatu képp kuy séntu njub ak di ko jéem a làmbatu ci leneen lu dul soobu ci yoon woowu nga xam ne moom la yonentu bi alayhi salatu wasalaam xàll jaar si yaa ngi ci réer te yoon woowu képp ku ci nekk yàlla garantiral na la ne yaa ngi ci njub te doo sànk ba mukk képp ku soobu ci yoon wi nga xam ne ci la yonentu bi alayhi salatu wasalaam jaaroon yàlla defal na la benn garanti te garanti bi yàlla amul lenn lu ko gën a dëgër mooy ne doo sànku te doo réer mukk moo tax suñu borom subhanahu wa taala wax yonentu bi alayhi salatu wasalaam si seen si diggante suñu rapport ak moom ne ñu wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen toppee yonentu bi alayhi salatu wasalaam di ngeen am njub bu ngeen ko toppee yéen ngi ci njub kon li fekk yéen a ngi koy topp xam leen ne yéen ngi ci njub kon mandarga ci nit ki nga xam ne dafa bëgg njub muy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu góorgóorlu ci topp ko rek loolu di nekk luy mandargaal di firndeel ak njubam waaye kéem lu muy sàggan ci loolu di bàyyi yoon woowu di jéem a seet yeneen yoon yoo xam ne nit ñi dañ cee jaar di ca jéem seet ak mbaax ak njub kéem muy gën a sànku di gën a sori njub ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa gën a xam ci nit ñi dëgg gën koo mën a leeral tamit ci nit ñi mooy ci gën a mën a leeralal nit ñi dëgg fasaaxa bi ko yàlla mayoon ak éloquence bi ko yàlla mayoon ba mu doon wax ne inni utiitu jawaami al yàlla daf maa tënkal wax li nit di wax ci bëccëg taxaw suba ba ngoon di ko leeral bu koo leeral moom day ñëw daal di koy tënk ci ab phrase benn benn jumla benn phrase bu gàtt wax ko mu leer naññ nit ñi dégg ko njàngaleem noonu la meloon léeg-léeg muy jàngale ci ay exemple yu muy jox xeetam léeg-léeg mu posé leen question loolu suscité seen curiosité ñu bëgg xam réponse bi lan la mu tontu leen ku mënoon a jàngale la alayhi salaatu kon dafa gën a xam nit ñi dëgg li nit war a xam mooy amul ci keneen ku mën a xamee dëgg joo xam ne yonentu bi alayhi salaatu wasalaam xamu ko woon benn bu fekkee yonentu bi alayhi salaatu wasalaam xamoon na ko da koo gën a mën a leeral nit ñi ba keneen war te mën a ñëw di leeral dëgg joo xam ne yonentu bi alayhi salaatu wasalaam xamoon na ko te mënu koo leeralal nit ñi beneen bi ci des mooy daa gën a bëgg a leeralal nit ñi dëgg amul keneen ku ëpp yërmande ci nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam amul keneen ku ëppal nit ñi yërmande ci nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax yàlla waxoon ko ne bil muminina raufur rahim xarisun aleykum la yàlla waxoon dafa am xérte ak ñeewante ci nit ñi laallaka baaxiun nafsaka an laa yakunu muminin loolu la ko yàlla waxoon ne ko di nga dem ba sax rey sa bopp ndax rek nit ñi ñàkk gi ñu ñàkk gëm loolu yépp ngir bëgg leen a xettali musal leen ci safara moo taxoon mu amoon ñewent googu ci nit ñi kon ñetti yooyu bu fekkee daje na ci moom nga xam ko mu wér la waroo mën a làmbatu wala ngay seeti dëgg ci feneen fudul ci yoon wi yonent bi alayhi salatu wasalaam nekkoon yonent bi alayhi salatu wasalaam doon na wax naan képp ku ma topp di nga dugg aljanna waaye képp koo xamante ne bi bañ nga nag kooku man a dafay daal di sànku dafay daal di dem safara loolu la doon wax ndax dafa waxoon ne man ataani daxal daxal aljanna wa man asaani faqad aba li mu doon wax mooy képp ku ma topp da nga dugg aljanna waaye képp ku ma mooy bañ nga ndax li tax mu wax ko mooy bi mu waxee ne sama xeet yëpp dañ dugg aljanna dul ko bañ nit ñi dañoo jaaxle ne ko naka la nit di bañee dugg aljanna mu ne ku ma topp di nga dugg aljanna waaye ku bañ ku bañ mooy ki nga xamante ne bi daf maa mooy ki bañ a dugg aljanna mooy ki nga xam daf maa mooy noonu la ko tontoo nit ñi leeral leen ko mu doon tamit naan amul benn yonent bu yàlla yebal lu jiitu lu dul ne war na ci moom mu xamal xeetam lépp lu xam ne xamal na leen ko mu tegtal ko xeetam loolu ni mu ko waxee ci yonent yi jiitu woon moom moo ko gën a jëfe alayhi salaatu wasalaam ci xeetam mooy ne kon li muy tekki mooy lépp lu baax lu mu xamal xeetam rek war na leen ko ba tax kon nit ki njub loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon jàngale ko da ko war a doy da ko war te boo seetloo gis nga ñi jiitu ci xeet bi génération bi jiitu ci xeet bi te yàlla defal leen ngërëmam fekk na ñi ngi dox ci kaw suuf fan lañ jëlee ngërëm loolu ci ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam doyloo njubam yàlla defal leen garanti ci alquran ne gërëm na leen radiya allahu anhum wa radu anhu laqad radiya allahu an almuminina id yuwaayicuunaka taxta alshajara loolu amul kenn ku am particularité bu mel noonu ci xet bi keneen mënatu koo am seen ginnaaw léegi nit dafay xool loo xamante ni yaqiin la ak loo xam ne zann la maanaam loo xam ne njott la lu nit ki di njott ak loo xamante ni lu ko leer nàññ la ñaar yooyu bu ñu teewee ban la nit ki war a jël li la leer nàññ mooy li yàlla wax mu nekk am ay firnde yu wér nekk ci alquran ci ne ñii topp nañ yonentu yàlla bi alayhi salatu wasalaam ci tënku gi ñu tënku ci njàngaleem ak njubam ba yàlla gërëm leen ginnaaw bi am yeneen yoon yu ay ay nit indi wax la lu tax nga njott ne yoon yooyu mën nga caa am ngërëmul yàlla waaye du firnde ju wér joo xam ne yaqin lañ koy tuddee muy certitude njott la rek loo am ndax yaakaar goo am ci liñ la ci wax léegi ñaari mbir yooyu bu teewee ci sa kanam ban ngay jël lu bari ci nit ñi seen ñàkk xam dafay tax dañuy bàyyi li wér li yàlla garanti bàyyi ko fi dem topp loo xam ne njott la loolu nag wóorul moo tax yonente bi alayhi salatu salaam jottali xeetam lépp loo xam ne yàlla joxoon na ko ba keroog yàlla subhanahu wa taala wàcce ab aaya daal di koy leeralal ne ko mission bi mu ko joxoon matal na ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum islaama diina bis bisu tey bi mu jëfandikoo alif wal laam bi nga xam ne lil ahd la muy bisub tey bi ba ab yahudi yi ñëw ci ne ko yéen jullit yi am na benn aaya bu wàcc si seen alquran bu doon ci ñun yahudi la wàcc bis bi mu wàcc feet lay nekk ci ñun ndax aaya bu rëy la omar ibn alxataab ne ko ban aaya la mu ne ko mooy aaya boobu di wax ne seen diine mat na yàlla wax yonente bi alayhi salaam ne ko bisub tey bii matalal naa leen seen diine xéewal gi nga xam ne mooy xéewalu njub mottali naa ko ci yéen gërëmal naa leen lislaam ji muy diine lislaam ji wa raditu lakumul islaama diinan mooy lislaam jooju nga xam ne mi ngi fi woon jamono ba aaya bi di wàcc loolu yàlla gërëm na ko lu yàlla gërëm nag wax dëgg yàlla jullit bu nekk war na koo doyloo ndax yàlla gërëm na ko loola ñu nekkoon ci jamono jooju aaya bi di wàcc yàlla subhanahu wa taala nee na gërëm na ko kon loolu moom mooy njubu yonente bi alayhi salatu wasalaam mu sonn ci xeetam loolu nekk fi di woote lu ne mu koy daj ngir nit ñi yàlla defal leen njub alayhi salaatu wasalaam nekk ki gënoon a rafet jikko ci doomu aadama yàlla taggu ko ci loolu lépp loo xam ne sabab buy tax ñuy bëgg la doomu aadama mbindeef mi ngi ci yonent boobu alayhi salaatu wasalaam moo xam ci taar bi nga xam ne taaru biir la di taaru jikko bi ko yàlla taggee ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wala taar bi nga xam ne taaru jëmm la te saxaaba yi daan ko ci xool luñ koy gën a xool rek di ko gën a bëgg wala njariñ li nga xam ne amal na ko nit ñi ndax benn ci borom xam-xam yi di alqaadi Iyaad dafay wax li ci as ci ci bi muy wax ci xasaaisul Mustafa ci ashifa dafa wax ne yi nga xam ne mooy sabab yi tax ñuy bëgg nit yu bari la waaye boo ko xoolee yëpp dafa daje ci yonent bi alayhi salatu salaam ndax nit day faral di bëgg ku ko amal njariñ mu ne nit jariñu la ci kaw suuf njariñ li la yonent bi alayhi salatu salaam jariñ nit jariñu la ci kaw suuf njariñ lu mel ne li la yonent yàlla bi alayhi salatu salaam jariñ ndax moo la jox njariñ li tax nga mën a mucc ëllëg ci safara njariñ lu mel noonu amul keneen ku la ko defal ci nit ñi kon moom nga war a gën a bëgg ci nit ñi moo tax mu doon wax ne kenn ci yéen du gën du gëm-gëm gi war li fekk gënalu moo ko ay waajuram gënal ko njabootam ay doomam xataa omar ibn alxataab bi mu ko waxee ne ko yow yonente yonente bi alayhi salatu wasalaam maa ngi seede ne yaa ma gënal ñëpp ba mu des sam bopp def na ko déedéet yow omar ba ba ma gënal la sa bopp moo tax yàlla ne woon an nabiyu awla bil muminina min anfusihim kon cër bi nga xamante ne war nga koo waroo koo sax jox sa bopp alayhi salatu wasalaam ndax lim la jariñ yow mënaloo ko sa bopp kon loolu mooy waral nga bëgg ko mbëggeel goo xam ne dafay féete kaw lépp léegi mbëggeel googu nag bu fekkee nekk na ci nit ki nekk lu dëggu nekkul lu nit ki di woote woo ak def ay slogan ak wane wala mu koy def ay cérémonie di ko féete bëgg yonente bi alayhi salatu bi du ci façon boobu lañ koy prouver Abdullah ibn Mas'ud daf ne ay nit dañ doon wax naan bëgg nañ yàlla di ko woote woo bëgg yàlla lu nit di wax la di wax ne mi ngi ci moom yàlla nattu leen ne seen bëgg googu ndax dëgg la am déet ne qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum waxal gars yi ne leen bu fekkee ne bëgg ngeen yàlla te bëgg googu dëggu ci yéen na ngeen topp yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam bu boobaa di ngeen am lu gën bëgg yàlla mooy yàlla bëgg leen kon loolu lu muy tekki mooy yàllaa ko bu yonentam wax ne bëgg nga leen du lu nit di wax rek ba noppi bu jógee di jëf-jëf joo xam ne du dëggal waxam jooju waaye da ko war a dëggal ay jëfam ndax doomu aadama képp ku mu bëgg mbëggeel goo xam ne àgg na ci moom fenn fi boo ko xoolee ci dundam rek xam ne kii bëgg na diw yàlla mënta yónne yonent bi alayhi salaatu salaam mu gën ci mbindee fii ëppal la njariñ ci nit ñi gën a mat ci nit ñi nga ne da nga koo bëgg ba noppi ne doo roy sunnaam doo topp ci yoonam bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam fi muy njëkk a feeñee mooy di jéem a fexe di ko roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana am ngeen royuwaay waxul sax royuwaay rek yam ca waaye daf ne bu rafet yàlla jëfandikoo xasana kon loolu li muy tekki mooy royuwaay baa ngoog roy leen ko ndax bu ñu yàlla ne am ngeen ci moom royuwaay li muy tekki mooy roy leen ko maanaam xabar la bi maanaam amr am ngeen ci moom royuwaay mooy roy leen ko kon li nit ki di njëkk a dëggalee mbëggeelam googu du ni ko jullitu mujj jamono ji jàppee waaye mooy ni ko saxaaba yi dundee ndax jullitu mujj jamono ji bëgg gi ci làmmiñ bi la nekk ak ci woote woo beeg wax beeg ak sax di xaabaabal ci ay mbiram di ko àggale foo xam ne yàlla àggalewu ko fa dem ba koy gam-gam yàlla ak di jël ay àq yàlla di ko ko jox ak di ko jël di ko comparé ak yonent yi mel ne ku nekk ci làmb di samp ay mbër naan du seen moroom ak du seen nangam déedéet du loolu ci lañuy ñuy wanee bëgg goo bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam ci di yëkkati ay mbiram ak ak jaakaar ne lépp mbiri tàgg la ak mbiri ay way yu neex la waaye mooy ci saxaaba yi Abu Bakar Omar Ali ñoo ñu jaay seen bakkan ak seen alal ngir defendre ko ngir jàppale ko ñoo ñu àggoon ci roy ko ba lépp lu mu def du ñu laaj lu mu def ko dañ ko ciy roy di ko roy ci lu tuuti ak ci lu ndaw def ko mu nekk seen modèle ñu jël seen dund lépp delloo ko ci moom lu leen jaaxal seen diine ñu laaj ko lépp loo xamante ni gis nañ ni lii defu ko bokkul ci njàngaleem ñu sori ko ñoo ñooñu la yàlla dëggal seen mbëggeel gi ñu wax ne bëgg nañ ko yonente bi alayhi salatu ba sax ku dul ab jullit koo xam ne ab yéefar la gis leen seen comportement ak yonent bi mu yéem ko ba mu dem ci yéefar yi ci yéefari màkka yi di leen ko nettali keroog sulxul xudaybiya bi ñu def négociation yi am na ci ñi doon dox ci émissaires yi doon dox diggante waa Màkka ak yonente bi alayhi salatu salaam koo xam ni moom bi mu ñëwee fekk yonente bi alayhi salatu salaam fa mu dal fa mu campé ca Xudaybiya mook saxaaba yi ab yéefar la mu jóge Màkka ñëw di négocier si moom lenn mu attiré attention am bi mu gis ak mbëggeel gi mu gis saxaaba yi bëgg ko yonente bi alayhi salatu moom looloo ko jaaxal bi mu delloo nee na leen dem naa ci buur yi fi nekk yépp ñu leen di màggal di leen réyal di réyal seen mbir gis naa seen doxalin ak seen nekkin ak ña nga xam ne ñoom lañ nekkal waaye mosumaa gis nit koo xam ni ay àndandoom bëgg nañ ko mbëggeel gu mel ne ñi ànd ak muhammad niñ ko bëggee maa raaytu maa raaytu ahadan yuhibbuhu ashaabuhu kama yuhibbu muhammadan ashaabu muhammadin loolu la leen wax kon mbëggeel googu dafa nekkoon loo xam ne da koy dangay xool teg ci sa bët daawuñu toog di wax naan bëgg nañ yonent bi damaa bëgg yonent bi ak a fetta soog yu mel noonu déedéet mais dañ ko daan dund ba ku leen gis ci ni ñuy dundee nga xam ne ñii dañoo am ku ñu bëgg di ko roy mooy yonente yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ci yar bu mel noonu la ñu war a delloo jullit ñi mais pas ci léegi conception bi nit ñi am ci bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaakaar ne bëgg ko organiser ay la bëgg ko gën a mën a wax ci moom lu rëy la bëgg ko gën a mën a way ci moom way yu neex la waaye bu ñu ne la njubam a ngi nii a ngi nii nga ni déedéet soxlawuma loolu am naa feneen fu ma mën a jëlee njub xanaa ci keneen kooku ngay jëlee njub dalaa gën a doy yonente bi alayhi salaatu da nga kaa gën a bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy paradoxe bi ci nekk moo tax kon bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam bu nekkee ci ab jullit lu dëggu dafa war a feeñ ci roy ko xale yu ndaw yi sax footballeur yi ñu bëgg dañ leen di toppandoo yow nga ne ab jullit nga ne bëgg nga sab yonent bi la yàlla yebal ci yow ba pare ne ab sunnaam di njàngaleem sa yoon newu ci sa njub bi lay yóbbu ci yàlla di la dugal aljana ci keneen nga ko yaakaaree ci ku dul moom te moom alayhi salaam mu doy loo waxoon ne la li ma indi na la doy ba leneen lu ñu fi indeeti bàyyi ko bul jël man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd innahu man ya'ish minkum fa sayara ixtilaafan kathiran fa alaykum bi sunnati képp kuy def ci diine ji loo xam ne amu ci suñu ndigal yàlla du ko nangu amu ci ndigalam amu ci ndigalu yàlla yàlla du ko nangu noonu la ko waxee woon li nit ñi nekk tey ci loo xam ne amuñ ci ndigalu yàlla amuñ ci ndigalu yonent bi nu mu tollu kenn xamul nu mu toll mu waxoon tamit ne ku yéen yàlla may ci yéen gudd fan ci saxaaba yi dina gis wuute bu bari ak tàqalikoo bu bari ci lislaam waaye dellu leen ci sunna bi ma leen fi bàyyiloon man ak samay àndandoo ñu nekkoon ci dellu leen ci loolu laaye biir bu gën a matale loolu kenn da koo da ko da koo mën a def laaye biir bu gën a matale loolu kenn mënu koo def mu def ko bàyyil ko fi xeetam xeetam jël loolu teg ko fële fàtte lim leen waxoon daal di soobu ci yeneen yoon yi nga xam ne wute na lool ak njàngale mi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam bàyyi woon na ko fi kon dëggal mbëggeel googu ak cofeel googu ci lim gën a mën a matee ci lim gën a mën a feeñee mooy tënku ci roy yonent bi alayhi salatu wasalaam tënku ci njubam mu bokkaat ci tamit ba léegi mooy di yittewoo njub loolu ak di ko gëstu ak di ko jàng sunna yonente bi alayhi salatu salaam njàngaleem la fi bàyyi yàlla daf ñu ko royloo ñu nekk ñaari kuréel kuréel goo xam ne dañoo dund ak moom jamononte ak moom daan ko gis di saafoo ak moom di dem ci moom ak kuréel goo xam ne ci ginnaawam lañ ñëw ñoom ñaar ñëpp yàlla déggal leen ñu roy ko kii daan ko gis di ko roy mu julli seen kanam ñu gis ko mën na leen sallu kama raaytu mu ne usalli julle leen ni ngeen ma gisee may julle léegi ñun ñi ñëw xadis boobu di wax ak ñun te ñun gisuñu ko nu ñuy def kon li muy tekki mooy ci njàngale mi lañuy dellu ci lim fi bàyyi la ñuy dellu te ñu tuxal ko jàngale ko yàlla sàmm ko ba nekkul lu réer waaye mi ngi fiy des ndax bu ñu yàlla santu santoon ñu roy ko te la war a tax ñu mën koo roy yàlla sàmm ko ba mu réer kon yàlla ñuy sant loo xam ne mënuñu koo def waaye sant gi ñu ko yàlla sant rek moo war a xam tax ñu xam ne mën nañ koo def ndax yàlla duñu sant lu luñ mënta def lan lañ ko mën a royee amul lenn lu ñu mën a royee yonentu yàlla bi lu dul dellu ci sunnaam kon li muy tekki mooy sunnaam mi ngi fi waaye ñun ñoo ko joxul yitte ñun ñoo ko jàngul ñun ñoo ko gëstuwul kon boo nee bëgg nga yonente bi alayhi salatu wasalam war nga yitte woo njàngale moomu yitte woo xadis yooyu ñu fi bàyyi gëstu la ca wér nga xam ko jàng ko loo ca mën nga jëfe ko di ko tasaare loolu tamit ba léegi ci lay feeñaatee jàppale gi nga war a jàppale wooteem boobu ndax yonente bi alayhi salatu wasalam mooy mujjantalu ko yonent yonent du ñëw ginnaawam lim fi bàyyi de xam-xam ci lañ koy donn ndax dafa waxoon ne al ulama warasatul anbiya yonent yi lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman innama warasul ilm fa man axada bihi axada bi xadin waafir yonent yi bàyyi wuñ fi alal liñ fi bàyyi xam-xam la ci lañ leen di donn xam-xam boobu ñu jël koo jéem koo jottali ci ci ci ci àdduna bi jéem koo tasaare suñu kéemtalaay kàttan kon jàppale ko tamit ba léegi ci njàngaleem jàppale ko ci daawam mooy ci booteem comme ni saxaaba yi daan taxawee moom di ànd moom ci yoonu xare di ànd ak moom ci ay jihaad di ànd ak moom di dem di lu ne ñu koy def ngir di sonn ngir xettali nit ñi jële leen ci réer yóbbu leen ci njub yow itam nga jàppale ko ci liggéey boobu alayhi salaatu wasalaam ci ginnaawam ndax doon na wax naan balligu nii walaw aaya jottali leen jottali leen ma na ngeen jottali jële ci man donte sax ak kaddu gu gàtt la ndax aaya yenn ci borom xam dañuy wax ne doo aaya alxuraan rek waaye mooy ak kàddu gu gàtt nga sax kenn dégg ci yéen jàpp ko takk ko na ko jottali ko nadara allahu imraan samia maqalati fa waaha thumma addaaha kama samiaha loo dégg nga comprendre ko mu leer na nga jàppale nga jàppale yonente bi alayhi salatu salaam ci jàngale ko ci tasaare ko kon tasaare njàngaleem yonente bi alayhi salatu salaam ngir nit ñi xam ko ndax lu bari ci nit ñi bëgg nañ waaye dañoo xamul dégguñu ku leen di wax sunna soosu njàngale moomu yeneen mbir lañ dégg ñu leen koy wax ba mu fees seeni xol ñu yaakaar ne lii rek moo fi nekk lii mooy njub mooy lislaam waaye bu ñu déggoon njàngale mi fi yonent bi alayhi salatu salaam bàyyi ñu jàngal leen ko mu leer ñu xam ne lii seenub yonent bi yàlla yónni si ñoom moo doon jàngale lii moo doon jëfe lii ñu bëri ci nit ñi danañ ko topp kon ñu góorgóorlu ci loolu suñ kéemtalaay kàttan mu bokkaat ci tamit ba léegi respecté yonent bi alayhi salatu salaam ak wekk ko am ci moom wegeel ci ni ñuy jëflante ak mbiram ci nit ñuy toppee yoonam ci tegginu ak teg ko ci xam-xam te bañ koo teg ci réer ak ñàkk xam ak làmbatu waaye ci lépp lu ñuy wax di ko jëmale ci moom alayhi salaatu salaam ba bu ñuy wax ci moom sax wax ji ñu mu nekk lu tegginu ci baat yi ñuy jëfandikoo ak di julli ci moom alayhi salaatu joo xamante ni suñ tuddee turam ñu julli si moom waaye tamit ñuy bari bëril ñu làmmiñ di julli si yonentu yàlla bi alayhi salaatu salaam rawatina ci bis yu mel ne bisu aljuma loolu tamit bokk na ci bëgg gi ñu ko bëgg te bu ñuy julli si moom nga la way ñu góorgóorlu ba lam ñu jàngal ne na ñuy jullee ci moom noonu ñu jël loola ndax bi yàlla wàccee ci jullit ñi ne leen inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ak ay malaakaam dañuy julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam yéen ñi gëm yàlla dee leen julli ci moom jul saxaaba yi julli ci dañoo ñëw ci yonente bi alayhi salatu ci këram ne ko ñun de xam nañ naka lañ lay nuyoo bu ñu ñëwee ci yow waaye niñ ñuy jullee ci yow xamuñu ko mu jàngal leen ne leen bu ngeen bëggee julli ci man da ngeen di wax nangam ak sàngam jullit yi tënku ci loolu xam kon li leen yàlla santoon naka lañ koy defee ñu jële foofu njàng bu rëy ci ne saxaaba yi ndakate jàppewuñ seen bopp ñu àgg ci lislaam ak ci xam-xam foo xam ne yàlla danaan def leen nangam rek kenn ku ne dem xool fent na nga jàpp ne na ko war a defee nga defee ko noonu waaye leen yàlla daan sant ci jaamu yàlla dañ ci daan référé wu delluwaat ci yonente bi alayhi salatu wasalaam te loolu bokk na ci li tax ñu gën ñoo mat li li tax ñu gën ñoo mat loolu bokk nañ ci ñun tey yàlla daf ñuy wax naan def leen nangam au lieu pratique bi ak naka lañ koy defee muy la comment ñu dellu ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mais dañuy dem topp yeneen yoon ak yeneen mbir yoo xam ne wute na ak lim ko jàngale julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu tënku ci li nga xam ne moom la jàngale alayhi salaatu salaam di julli ci moom lu bari ñu fonk ko fonk njabootam fonk waa këram am ci ñoom wegeel am ci ñoom cofeel ak mbëggeel te bañ a xaabaabal ak ëppal ci ñoom wala di leen mbubboo bay wax ci ñoom yoo xamante ni wérul ci diine comme ni ko ñeen ñi di defee di woote woone bëgg nañ njabootu yonent bi alayhi salaatu salaam te lépp ay woote rek waaye ay wax lañ cee jaarale ci suuf yoo xam ne lu bari lay yàq ci lislaam waaye wek tamit ay àndandoom di ay saxaabaam yi nekkoon ak moom mu bëggoon leen sopp leen lool fonk leen jaxasoog ñoom ñu jàppale ko ci diine ji bokk na ci bëgg yonente bi alayhi salatu salaam yooyu nga bañ leen a lor ndax na wax jullit ñi naan leen laa tasubbu asxaabi bu leen di ŋàññi di jëmale lu ñaaw di ko jëmale ci samay saxaaba samay àndandoo mu jëfandikoo baatu asxaabi mu mel ne comme lor leen lor ko la moom yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu yëpp jullit bi bàyyi ci xel kon bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam mi ngi noonu lu kenn ku nekk ci jullit yi di woote woo la waaye kenn ku nekk sa woote woo boobu la koy dëggal mooy say jëf ak sa nekkin ndax ku nekk am nga sañ-sañu woote woo lu la neex yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne law yuta naasu bi bi daawaahum la daa unaasun dima aqwaamin wa amwaalahum nee na bu fekkoon nit ku nekk loo woote woo rek ñu jox la ko nee na nit dina ñëw ne alalu diw wala deretu diw maa ko moom kii xale bi maa ko jur alal ji maa ko moom ñu jox ko ko ndax nit ñeme naa woote woo lu ne waaye nee na waaye nag li am mooy koo xamante ni da ngaa woote woo mbir walakin al bayyinatu alal mudda'i koo xamante ni da ngaa woote woo dara ne lii maako moom lii nangam sangam mu ne dangaa ngaa war a indi firnde da ngaa war a indi war indi preuve loolu nekk benn règle ci règle atte ci l'islam ci atte ci l'islam waaye règle boobu mu joxe ci atte ci l'islam dañ koy jànge dañ ciy jariñu tamit ci buntu yu mel nii mooy woote woo ak fëgg sa dënn di wax ne bëgg nga yonent bi alayhi salaatu kenn ku nekk ci jullit yi da koy def waaye firnde boobu yonent bi alayhi salaam xam ne albayina muy firnde boobu di fir di dëggal mbëggeel googu ak cofeel googu ci lan lay feeñee ci li muy feeñee mooy gën a wommatu gën a topp yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam gën koo déggal foofu lay feeñee yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala defal loolu rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laxirati xasana wa qina adab annar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab allahuma aslix lana dinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix lana axiratana allati ilayha macaaduna wa aslix lana dunyana allati fiha macaashuna allahuma agfir lana wa tub alayna اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واخذنا بفضلك عمن سواك allahuma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة أسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية